abonné leen ci suñu YouTube ngir jot saa su nekk ay xibaar yu wér te wóor aju ci réew ahlan bikum journaliste taskatu xibaar yu réewum Sénégal bëri na si ñoom ñoo xam ne fi mu toll nii fañoo sonn fañ leen di jàpp di tëj kaso ak a woolu ci wàllu yoon ci xanam gu jéggi dayo express yéene kaay ne journaliste yi kay tiisuma leen mbaaw ñu ngi ci ay jafe-jafe dëgg a yaw seetal Pape Alé Niang fii lañ ko jàpp tëj kaso te ba léegi sax ma nga ca contrôle judiciaire mënta génn réew mi ñu ne déeta waaye Pape Ndiaye bu wal fajiri ma nga ca kaso Walfadjri xaw na yoonu dem kaso Babacar Touré bu kéwloo moom it journaliste la xaw na yoonu dem kaso moom fañ koo xoolu plainte boo xamante ne ku nekkoon ab policier ñu koy wax Frédéric Napel moo ko ko kalaame na fa koo def li ñuy wax diffamation waxal lu xamut ak joxe xibaar yu wéru teg yeneen yi ni mel Moustapha Diop nag directeur Walfadjri TV moom fañ koo xoolu ni ki suba ca police centrale bu onze ci suba jotee yéene kaay bi ne Reporters sans frontières fa ñoo classé Sénégal moo xam ne taskatu xibaar ya fañ faa ay jafe-jafe waaye fi mu toll Sénégal maanaam réew moo xam ne journaliste ya fañ leen fay bundu xataal seen liggéey l'évidence yéen kaay ne lii kay fa jéggi dayoo journaliste yi Sénégal yi fi mu nii leen di def mooy fañ leen di lukkat di leen wër rëbb jàpp rawatina journaliste yi nga xam ne nag fa ñuy moo tax seen kaa fi mu toll nii fa critique maanaam su fekkee yow journaliste nga doo wax lu neex nguur gi yow de tiisuma la mbaaw faa jàqal booy dof dof lu rek di ca kasa moo tax ñu ko ci affaire Pape Ndiaye bi la le mandat yéen leen di woolu ci wàllug yoon bari ayaw seetal Coro Mandela bu wal fajri jigéen ji wéru la fa hëmb ba toll ci juróom-ñaari weer wér gi yaramam mayit ko mu nekk ci kaso te fi mu toll ni gaa fi ñu koo tëj foo nga ne loolu jàmm la leer laneen lu leer ba yegg ca naan ñi ja mooy ne benn bokk yaakaar seen majorité bañ amoon ca assemblée nationale ma nga ca danger de carte ka jaxasoo na fa de si du quotidien moo ñu ko xamal ah ayow fa ngay seet député bi ñuy wax Mariétou Dieng bokk ci parti Idriss Seck mi nee na ba set wecc ndax idi comme bennoo bennoo 83 député lañ amoon fi mu toll ni 82 lañ am waaye yéene kaay réew mi muy Mariétou Dieng moomu gaañ a fañ Mimi Touré fa lañ fas yéene jaar ak moom fañ koy kàjj football dàq génne assemblée de te mooy kaay ne njiitëra Macky Sall ñàkk na majorité ci assemblée nationale fi mu toll nii ndax ku jégi suñ boolee lañ am ca député ak non inscrits ya fa nekk ñooy ëppale waa bennooy le quotidien yéene kaay na majorité ba kaay fi mu nii fay wër xamul fan la nekk Mariétou moom non inscrits lay nekk maanaam bokkut bennoo ku jëga turbine yéene kaay ne idi kay Macky Sall ndax fexe na fi mu ni ba majorité ba Macky ñàkk na ko ci assemblée l'observateur ne man faa xamut benn bokk yaakaar gii ëllëg njiitu réew Macky su nekkut candidat fan la bennoo jëm xay fa leen a nar a xenu de ndax duñ juboo mukk ci beneen candidat fa ñoo nar a féewaloo te su boobaa fa fori new leneen lu leer ba yegg ca nàññi ja mooy ne Ousmane Sonko tàmbaliwaat na ne mekku tuuram ba ca diwaanu Ziguinchor la nekk jamono ji yor yor yéene kaay ma ko topp fépp fu mu dem yëkkati na a te ñun waaye du pexe benn jaam te lu yàlla dogal si ñun gërëm nañ turbine yéene kaay ne Bougane Gueye Dany tamit ma ngay waajal tournée tekki jot na ci fukki fan ak juróom-ñaar superviseuru gëm sa bopp ya fa ñoo bëgg wër ci 296 yi mais leer laneen lu leer ba yegg ca nañ ja mooy ne njiital armée bu bees bu Sénégal général Mbaye Cissé installé nañ ko regard yéene kaay moo ñu ko xamal fam nara a jaar ak armée bi lim nar a liggéey lim bëgg a ànd ci coppite lépp wax na ko moom général bu bees bi installé général Mbaye Cissé moomu jëwriñ bi ñu dénk soldaar si forces armées ma nga fa woon waaye fafaa porox ndoll daal di attaqué wax ak ñi nga xam ne fa ñoo bëgg a féewale suñ soldaar si yaaw seetal jëwriñ ji fa wax ne suñ jàmbaar yi nga xam ne kaaraangaa askan wi ci la ñu nekk fañ leen war a jox cër ku leen bëgg a féewale tamit du sotti dafa bëgg ngeen xam ne suñ soldaar si amul wàllu xeet wàllu diiwaan bi ci ëpp ak wàllu boddekuwantu ci biiru xeet yooyu yëpp amu ci armée bu mucc ayib lañ am la sala yéen a ko faa la koy dëggalal ndax am na benn soxna su nekk ci armée Fatou Fall njiitëram Macky Sall tabbu na ko def ko ab général te li ni mel mësta am guléet yéene bi mag ñuy wax jaar-jaaram bés bi yéene moom di ñu wax ne procureur adjoint bu Dakar gars fañ ko toxal de yóbbu nañ ko Tamba affectation boobu nag bëri na ay laaj yu sa samp de ana moo ko waral lu nekk ca gannaaw leer leneen lu leer ba yegg ca nañ ja championnat Angleterre kan moo ko nar a jël tey lay leer ndax Man City ak Arsenal mi jiitu tey la ñuy bal ku ci dóor rek de presque fa ngay jël championnat ba ci nga xam ne nag du jël championnat Espagne leer na nañ ñi mooy Real Madrid équipe bu mag a mag bi stade yéen kaay ñu ko xamal démb de xaw tuuti Girona ray ko de fa ñoo mbuqi Real di ko mbuqi di ko mbuqi di ko mbuqi ba muy bëgg a dee ñeenti bal ci ñaar waa Barça ya kontaan nañ ay noonu lañ de Libération moom di ñu xamal ne Sénégal fa xam ñoo xam ne fa ñu def wàllu business ci certificat de nationalité yi fañ koy jaay maanaam yow seetal fa xam xab naar bu dëkk Syrie tudd Moustapha Ali Brahim juddoo Syrie waaye gars yi faxe nañ ba utal ko certificat de nationalité mu juddoo fii Sénégal 24 janvier 2018 ci la naar bi am certificat de nationalité ba léegi waaye bureau passeport ñoo feeñal yëf ya ndekete moom décret ba ko jox certificat de ba foo baaxut waa wax Aline Jaxate nag fi mu toll ni fa daw dem Gambie ndeke moom it nee nañ daal njaayum certificat de